birthday to you Soumboulou Bathily madame Diop ah man sa borom kër maa ngi lay ñaanal gudd fan bu ànd ak wér maa ngi lay ñaanal sutura tawfeex tey siir di ñaan yàlla mu bàyyi la ak sa tout tànk boobu di soxla jaara may la yeneen ak yeneen ak yeneen ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla musal la ci cat musal la ci musiba musal la ci seytaane ah te bàyyi la ak man nag macha allah yàlla defal la jam bu baax a baax a baax a a baax. lépp loo xam ne bëgg nga ko rek yàlla loo ko yàlla defal ci barke yonent yàlla Muhammad di la wax rek macha allah yow xam nga man xam naa loolu rek moo ci am solo euh, sa yéene macha allah koo xam ni macha allah daal wallahi yàlla xam na ko li ci xol bi yëpp kenn mënu koo wax waaye li ci ëpp importance rek mooy maa ngi lay ñaanal gudd fan bu ànd ak wér bàyyil bàyyi naa toogal toog naa rek macha allah yàlla na yàlla defal jàmm